Euh, bu Argentine fii di La Plata tey ji nag euh, ñu amal gàmm gi ginnaaw bi nga xamee ne jàng nañ fi alxuraan ci ay limi takku euh, jàng fi lépp loo xam ne mooy ay salaatu ala nabi def fi bur lépp mel na ne jamono ji nag damay daal di janoog nga xamante ni ñooy kilifa yi nga xamante ni ñooy muxaddam yi jiite daayira bi boo ko defee man laaj leen ban taxawaay lañ am ba taxawal lu mel nii fii ci La Plata mu mel nii damaa janoog sama nijoor ki nga xam ni mooy jëwriñ li nga xam ne mooy daayira Jamiha Cheikh kon salaamaaleykum maam ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuho wa maxfiratuho wa ridwanuho mbokki jamia Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mbokki jullit yi La Plata ñëpp ñi fi yewoo ñoo ngi leen di delloo siyaar ci bis bi sell bis màgg bi di jub Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallama nga xam ni moo waral yàlla amal jaam ñi ñu koy taxaw fii nag ci La palaata daaw ñu taxawoon ko ren jiitam ñu amaat beneen taxawoon waaye boo xam ni bokkut ak daaw ci wàllu organisation bi ak ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di ay julit di ay te ay mbokki julit kon loolu laay ubbee sëñ làmp tomb dell macha allah eh, jërëjëf eh, kooku mooy maam ndaw mooy ki nga xam ne mooy jiital jëwri yi nga xam ne mooy jame anseex kon bu ko defee rek sama wet tamit maa ngi fekk ki nga xam ne mooy porte parole daayira bi moom it dañ koy bàyyi ñu nuyu di ko ziar bu baax a baax eh, sëriñ Cheikh ñu ngi lay ziar salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki waa La Plata mbokki waa Sénégal ñu ngi leen di ziar di leen nuyu baax a baax a baax kenn ku ci nekk ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bi la suñ borom jox tabaarakallaahu ah di amu sant bu baax a baax ci bis bii nga xamante suñ borom def nañu fekk ko di ñaan yàlla yàlla nañ ko yàgg fekk ay déwéni déwéni déwén ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp luñ ci ñaan rek yàlla na ko suñ borom nangu gis naan ca suba ba nëga ni ñu ngi taxaw fii wax dëgg yàlla am na ko suñ mbokki taalibe yi ah waa La Plata gépp kenn desul fa tabaarakallaahu ñëpp ñu ngi teew lépp ñu di ko teg ci loxol Serigne Moustapha Fall jëwriñ mu jotal ko mbokki suñu mbokki taalibe yi nekk fi yëpp rek a ah, mu mel ni ñu ànd ak ñoom bis bi wax dëgg yàlla ci suba ba nëga ni ñoom itam ñu ngi ko ànd ak ñoom ci wàllu alxuraan beeg waaru sikkar yeeg lépp rek fa tabaarakallaahu ñu ànd kook ñoom di ñaan yàlla rek yàlla nañ ko yàgg a teewe ay déwéni déwén ci barke yonente bi wax dëgg yàlla dëkk bi di lappalaata daal a ah, ñi ngi ñaan yàlla yàlla na fi suñu borom dolli sutura ci barke yonente bi ndax ak dëppoo am na fi ak jàppoo am na fi bennoo am na fi ndax wax dëgg yàlla bis bi saa su amee ñëpp ay dagg seen yitte ñu ñëw taxawee ko ci ñaari côté yëpp nag fa tabaarakallaahu kenn ku ci nekk da ngay bàyyi sa yitte ñu ñëw teewee ko mu nekk ñaari daayira fi am wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu waaye ñaari daayira yi boo fi ñëwoon mënoo koo xàmmee kon nag loolu dañ ciy sant yàlla baax a baax baax ndax jëwriñ mi taxaw ni sama wet wax dëgg yàlla ko am pasteef la yàggul ci dëkk bi waaye wax dëgg yàlla lii lépp mën naa samam ci ay loxoom la jaar wàllu bi yëpp ñu taxaw ni di wax ni ci ay loxoom la jaar kon na fa tabaarakallaahu ñu ngi koy ñaanal baax a baax ah di ñaan yàlla bis bi daal lépp luñ si ñaan yàlla na ko suñu borom nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu delloo sëriñ bi kàddu gi rek fa tabarakallahu waaw jërë ngeen jëf kon bu ko defee tamit mu nuyoo nuyoo bu am solo boo xam ne daanaka lépp tënkal nañu li ci ëpp kon bu ko defee rek dañuy jox uh, sëriñ As tamit moom it mu joxe nuyoom ndax mënta ñàkk sëriñ As ñu ngi lay nuyu baax di la ziar uh, nga jot la sa nuyoo ñi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel jamono ji ci seen télévision Touba Argentine TV waaw di wax waaleykum salaam sëñ Lamp Fall Tomb Del di wax aawuzu billahi min sarri nafsi wa min sarri seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala asrafi alxalqi sayiduna wa maulana muhammad ibnu abdullahi waaw comme bis bi rek ñi ko sunu maam ju tedd ja waxe rek seydil xaazi malik ala xazimu laylal wiladati xisbatan ida lam nakun naxwal xaraamu odulu ah kon bis bi bisu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la seydil xaaji malik woote ko di ko màggal ah woote gi ak màggal gi nag nee na ñu ko koy defal ci lu nekkul loo xamante ne si lu xaram la di ko def ci ay zikrullahi di ko def ci ay zikru sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd yàlla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko sun mbokkam ma doon defee rek seexal xaddim maam boroom Touba moom nga xamante ni soppeem ba xaritam ba kon loole nga xamante ni si ñi ngi ko fa daan saxal wax dëgg yàlla moo continuer di continuer di law ba ak si fii ci ah, Argentine dëkk bu ni wax La Plata kon booloo ga nga xamante ni si amoon na lool moo continuer ba law ba ak si fii booloo gi fi nekk macha allahu nekk na loo xamante ni si lu am solo la kenn xàmmeewu fi tijaan kenn xàmmeewu fi murit kon lool ak sant yàlla gu wér la ndaxte a ah, lépp fa tabaarakallaahu dañoo jàpp ne benn la kon dañu yemale kàddu yu foofu rek ah fa tabaarakallaahu sëñ Lam Fall Tomb dee la. macha allah sëriñ As mel ni kàdd yi masallah allah jot na jotale na lool euh, kon bu ko defee rek euh, dañuy laaj sunu maam ndaw moom euh, mu wax ñu maanaam. Euh, nu ngeen def maanaam mu mën a taxawal lii ñu gis at yi passé ni ngeen gàmmoo ak gàmm gi maanaam wuute yi ni mu bëree mu mel ni daa waroon nekk doxu loo xam ne doxu ñetti at ñeenti at juróomi at mu mel ni taxawal bi maanaam macha allah euh, kéemaane na lool ñu bëggoon ngay nun ci ay leeral pour ñi nga xam ne ñoo ñuy topp suñu télévision Touba Argentine TV. waaw asalaamaaleykum Tomb Fall bi Tomb del ñoo ngi lay delloo siyaar di yëkkata suñu kàddu rek ci li nga xam ne mooy solos bis bi muy bis Seydina ak ren am na différence ndax loo gis rek yokkute da cay am te yonent bi moo toll noonu boo ko defalee fukk mu fay la téeméer boo ko defalee téeméer mu fay la junni kon loolu moo tax yokkute ren gi am ginnaaw lool li ma ci tegaat mooy li nga xam ne moom leen fi jàng ci ay kaamil jàng nañ fi ñeenti ñetti kaamil te njàngum kaamil njàngum alxuraan mi ñu ngi ko tegan ci euh, loxol Moustapha Jawrin ñi nga xam ne moo jiite daaira Jasbul Xulóob ci membre yi nga xam ne ñoo topp ci ñoom ñu ànd ko ak ñoom ba ña jàng fi ñetti kaamil am ñaari kaamil yoo xam ne tam dama tàmbaloon benn bi Modou Fall tàmbaloon benn bi ñu eggale ko mu nekk juróomi kaamil bin jàllee ci loolu ñu julli tusbaar joxewaat fi ay kalimatu laa ilaha illallah maanaam li gën a am solo ci bis bi daal mooy li nga xam ne mooy yonent bi sallallahu taala alayhi wa ndax bisam nekk na loo xam ne lépp lu ci waay def rek ñàkkoo te li ma wax rek sama commencement mbir moo gis rek boo ko tàmbalee ak na muy doxe sa première ak sa deuxième ak sa troisième ba ba ngay gën a progressé bu baax a baax da nga fas yitte fas sa jom ndax julit daa amul nu lu raw naa Mohamed waaw ndax ne ko yàlla wax ci alxuraan wa ma atakum rasul fa xuso wa ma nahakum anhu fantaxoo lépp lu leen yonte bi andil jàpp leen ci lépp lu mu leen tere bàyyi leen ko delluwaat ci aaya bi ni euh, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum moo tax ñun ñëpp ñu daje kenn xamewu fi kii kee la kii lee la ñun ñëpp dañoo xam ni ay julit lan dañoo bokk Seydina Mohamed moo tax ñu ñëpp taxaw ci bis bi góor ñaa ngi fi jigéen ñaa ngi fi ci liggéey bi ci waañ wi ak bernde yi nga xam ne moo fi am li ñuy am contentement bu baax daal mboole mi nga xam ne moo fi teew di am contentement baax TV Argentine Touba TV Argentine te ki ko yor di góor a sekk di sunu xarit yow tam ngay sunu xarit di suñu soppe kon loolu dañ ñaan yàlla mu gën a sax ba lépp loo xam ne at mu ñëw rek ñu gën koy gën a am ba nga xam ne dina jànn ci mbon monde bi lépp waxuma la Sénégal waaye monde bi lépp dina fi jàll ndax li jot a dugg nii léegi ci suba gi ci njàngum alxuraan mi tasaaroo na fu ci moom fu bëree bëri fi mu ne nii kon ñoo ngi sant baax ñoo ngi gërëm baax ndax euh, jataay bi ak bëgg a jël kàddu ak sama kàngam yi ma àndal di sant ñëpp daal di am contentement bu baax a baax a baax daal ci bis ba nga xam ne moom leen jëmmal di ko taxawal ngir guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ñun daaray soppe maam Ahmadou Ndack Seck Almadiyah al akbar di bokk ci njabootuk maam Ahmadou Ndack Seck Almadiyah al akbar ci Cenaba Cenaba Seck ca Sénégal ñii di naane kër Alaaji malik ñii di naane kër maam Borom Touba kenn xamewul kenn waaw ñun man nga xam ne nag maay président daayira Jamia Cheikh ñëpp ñu ngi sama ginnaaw dëggal dëggal samay kaddu ci lépp loo xam ni loolu la daaira bi taxawal képp bépp bépp membre bu ne nekk rek am nga ca taxawaan woo xam ni boo sanan bu sa loxo joroon sa ginnaaw lépp yaa koy financé waaye dañuy ajamaatu rahma mbooloo yërmande la ba kenn ku ne dugal na loxo ñi nga xam ne bokkuñu ci daayira bi sax dugal nañ dugal nañ see loxo di ay julliti yàlla ndax li ko waral mooy Seydina moomet waaw ndax bisam moo toll noonu wax mënuñu koo fay waaw ndax moo tax yàlla amal nu moo tax yàlla amal jaam ñi kon bisam bu ñëwee guddeem nga xam ni comme ni ko ab Abdoulaye Diop waxee sàng rek ay mujjisaat am na ci ci ak juddoom waaye waxuma la judd waaye ëmb bin ko ëmb rek ay mujjisaat feeñee sa yoo xam ni fa tabaarakallaa kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di am contentement képp koo xam ne daal yaa ngi yeewal laa palaata am nañ ci yow cant koo xam ni am na tàmbali waaye amulub yem waay naka si kasaalik na ko ñu ngi dëkk ci Provença yi ñëw ci fii ci La palaata bokk kook ñun kon taxawaay bi am na solo ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp li ma ci bëgg a wax lépp daal li duuf ci nag yu daal xajul ci ci cin li xanaa duñ koy tënk noonu rek bàyyi suñu mbokk yi nga xam ne ñu delluwaat ak seen kàddu masala kon suñu góor bu ko defee tamit duñ déplacé wu mug te joxuñu ki nga xamante ne mooy Ousseynou Fall moom it euh, ci kàngam yi nga xamante ne ci ngànk daayira bi ci lañ bokk kon bu ko defee rek euh, dañ koy jox kàddu gi moom it mu indi ci ay participation Euh, sëriñ Ousseynou ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julli yi mbokki daayira Jami Cheikh ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ci bis bu màgg bii di weeru gàmm di bisu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ci ziar ñëpp nag di ziar suñu mbokki jasbul xulóo bi ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ci rafet taxawaay yu rafet yi ñu ngi leen di ziar bu baax di nuyu suñu grand baay Ndaw di ko ziar bu baax di ko jaajëfal bu baax di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di am kontante bu baax a baax wax na ci biss bi bis bi nag nekk bis bu màgg a màgg mu nekk bisu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ni e, képp ku di jullit rek wax dëgg yàlla ah fu waay nekk yaa ngi koy màggal di jullit kon ñu ngi ziar ñëpp tey jaajëfal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam euh, en tant ki nga xamante ni bokk ci ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi nga xam ne ñoo yor mbir mi euh, tey jii boo ñu doon fotal li nga xam ne mooy bis bi ci wàllum mberne yeeg wàllum xéwal yi maam ni def ba taxawal ko boo ñu ko doon fotal tey jii noo ñu fotali bis bi daal jëmi bis waaw jërëjëf Lamp Fall waa bis bi moom wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu ñu ñu ngi jaajëfal bu baax a baax membre yi nga xam ni ñoo ci bokk fa tabaarakallaahu taxaw na ci taxawaay bu rafet a rafet wax dëgg yàlla ndax yaakaar naa ne kenn ku ci ne eh, sa yéene moom ci bis bi moom eh, macha allah tabaarakallaahu moom daal kontaan nañ bu baax a baax daal ndax wax dëgg yàlla lépp yéwén na tabaarakallaahu berndeel yeeg yëpp macha allah tabaarakallaahu macha allah mu mel ni yonente bi sallallaahu alayhi wa sallam mbira mu mel noonu maanaam amul la te bërigob diw la népp nu ci waay soobu rek noonu nga ciy nii ne moo tax waa jamaa seex bi ñu ko dalee màggal ba tey jamono ñu ne yokkute lañ ci yëg euh, comme ni ko góor ga ca Tiwaawan daan waxee rek moo tax bay moo tax ñu tax bay tex texi euh, kon bu ko defee rek euh, maam ndaw bu ko defee da ngaa jonoog Baye As moomeen mel ni moom jëwriñ la ci yoon wi waaw ñu bëggoon mu fàttali ñu tuuti ci njariñul bis bi ak la moo sabab bisu gàmmu dëgg-dëgg pour ñi bàyyi xel. waaw Serigne Lamp Fall Tombou Del. li sabab bi su gàmmu mooy màggal juddu yenent bi sallallahu alayhi wa ni ko Seydil Xaaji Maalik waxee ca miimiya wa mawliduhu bihi sarafun wa fa fi taazimu inja u sujuni nee wa mawliduhu keroog bi su juddu yenent ba sallallahu alayhi wa sallam bihi ca moom sarafun mbégte tedd nga keroog bis bi nga xamante ni si Seydina Muhammad juddu na ah bis booba lépp kontante la weer wa mbégte la at ma mbégte la moo tax Seydina Muhammad kenn du moom te lépp loo xamante ni si bind nañ ko ci kaw suuf ci àdduna moo tax ñu bind ko moo tax góor ga wax ko ni wa ma xalaqa arrahmanu say an li nafsihi siwa sayidil mahmudu wa huwa habibu wa ma xalaqa bindul arrahmaanu yàlla say an dara li nafsihi ñeel boppam nee na lu mu bind tax mu bind ko ci soppem ba si waa sayidil mahmudu wa huwa habibun kon sayiduna muhammad daal ah bis bisam la te lépp lu ci waay def rek ah sun borom dina la ko fulal muy ci zikr muy ci tudd yàlla muy ci tudd sayduna muhammad sallallahu alayhi wa muy ci julli ci yenent bi allahumma salli ala saydina muhammad ak ci lim bu man di doon rek fa tabarakallahu ah bis bi moom wax dëgg yàlla a la boo xamante ni si daal kenn mënu koo tafsir ba nga xamante ni si du des ni ko alaaji Malick waxe ca xilaas ba rek wa innahu iz arada allahu nas atana abana min nuurihi nuuran nabil alami ca sun borom da ko tagg ca avant kenn di ko tagg sun borom moo ko njëkk a tagg ni ko wa innaka la ala xuluqil azimi kon jikkoom ya rafet jikkoom yu rafet yooye wal nanoo xool ca jikko yooye nga xamante ci bis ñu tànn ca ay jikko yoo xamante ni jikko yu ama ama am solo lay doon wax dëgg yàlla fa tabarakallahu ah Seydina Muhammad daal nekk na koo xamante ni si roywaay la comme ni ko Baye Ndaw waxe woon léegi rek wa ma aataakumu rasulu fa xusuhu kon lim ñu indi rek ci loolu la ne mën a topp fa tabarakallahu kon bis bi daal liñ ci def rek yàlla na ci yàlla defal sami'na wa ataxna wa ma tawfiqi illaa billahi tawakkaltu wa ilayhi unibu assalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf kon da ngeen ni ko bàyyi Ass waxee ci njariñ li nga xam ne mooy gàmmu ak ni ko góor gë ci Tiwaawan doon waxee yooyu yëpp macha allah mu mel ni indi ci ay jàngalo yoo xam ne yu am am la macha allah yoo xam ni ah mën na ci am ay déggin yu kawe kawe bu ko defee rek bala ñoo tëj rek dañuy jox ki nga xam ne mooy jëwriñ ji euh, mu jàllale message ni nga xamante ni ñoo jàpp ci mbir mi ba mbir mi taxaw ak jëwriñ ñi nga xam ne jamono ji ñoo nga ca Tiwaawan mooy sangu yu tedd ya fa nekk tey bàyyi xel li nga xam ne mooy télévision bi kon bu ko defee rek maam daw dañ lay jox nga sànni kàddu waa Sénégal ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ba lépp yemb ak mbooleem mbooloo yi ngeen ko àndal ak ñëpp macha allah. waaw asalaamaaleykum Tombou Del di sant baax di sant baax ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne sunu mag ñi nga xam ni ñoo sax ñoo sos tarixa yi ngir sàmmee ko mbokki jullit yi seen rawal seen pas-pas kon sunu mag ñi baax ñi dañ leen sant leen ñaanal yàlla ñu nga xam ne seen i sët la tam te nekk ca xilaafa ga di ñaan yàlla yàlla yàgg leen ci kaw suuf. dafa leen wér mboolem fi ab taaliba nekk daal koo mën a jokk rek dànk ya muy doxe nga doxe ko noonu loolu daal leen santaane ndax loolu la yàlla santaane kon moo xam yaa ngi senegal moo xam yaa ngi bitim réew ñuy olof di wax rek jullit bu wéetee daa war a gore bu wéetali ko daa war a gore jàpp sa diine fonk sa diine fonk sa lislaam fonk sa ngor kon loolu euh, message boobu lañ lañ ciy toftal di ko laaj fépp foo xam ne ab doomu aadama nga fa rawatina ab julit nga fonk sa diina fonk sa ngor kon loolu day am solo di ñaanal suñu xalifa yi nga xam nag ñoo nekk ci Sénégal yàlla defal leen wér kenn ku nekk njaboot nga ko jiite yàlla sàmm la defal la wér nga yàgg seen kanam ci barke yonente bi sallallahu loo am rek ci guddi la ko yàlla amale muy guddi Seydina Mohamed kon ñu gën ko fonk baax asalaam mel ni maam ndaw dugg nga fa am solo kon lan lañ mën a jànge ci bis bi pour ñu fi ñëw tey ji lan lan lañ mën a jànge ci bis bi waaw bis bi daal a mën a jànge mooy kennal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax ni ko yàlla tagg ci alxuraanu karim kon loolu jullit dafa aram jikko ci rafet te ka nga xam ne mooy roy waay mu yont bi euh, la muy doxal la mu daan doxal mu mu doxal ko waaw kon bis bi daal di ñu gën a mën a jàng dëgg dëgg dëgg mooy loolu waaw mooy loolu jikko ju rafet yéeneente jàmm dimbalante jàppalante te yàlla tax te am na fii nag ci La kon jërë gen jëf inna allaha maana waaw jërëjëf kon bu ko defee rek dañuy continuer ak sunu mbokki taalibe ba tey euh, li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi euh, bu ko defee da ngeen tegandi foofu baaraam rek euh, kon dégg ngeen li nga xam ne noonu la ko maam ndaw mooy jëwriñ ji ak Serigne Cheikh ak Serigne Ousseynou Fall ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk kàngam yi nga xam ne ñoo ngànk lii di daare Jamia Cheikh muy mbooloo moo xam ne dañoo teg seen tànk ci yoonu sirat al mustaqim Sénégal sori na lool waaye teewul ñoo ngi fii di dundal li nga xamante ni mooy bisu rasulullah sallallahu alayhi wasallam noonu leen na leen ko kilifa ga digaloon muy maam Alhaji Malick Sy muy kilifa goo xamante ni ñëpp la yamale woon yàlla doon koo xam ni euh, ak mujj ak dundam moom maam Cheikh El Hadj Malick Sy euh, daraan wàññi ak lekkam ñu naan ko góor gi la waral lii maanaam damay bañ bis ma faatoo ñi nga xam ne ñooy téye jàggi muy diis si ñoom ma leen di ameel àq kon kooku yaakaar naa mu ngi fa war a toll digganteem ak boromam kon yaakaar naa ay taalibeem bu ñëwee fii euh, di dundal bis am Mohamed kon dañ leen leen gàcce ngalaama rek kon bu ko defee da ngeen naan kiis rek ñu indiwaata leen leneen ci temps ngeen am incha allah